xanaa di rafetlu action COJER bi parce que def di loo xam ne dañ ko soxla woon bu yàgg malgré am na ñoo xam ne nag commencé woon nañ ko parce que bu ngeen xoolee am na déjà euh, ay garab yu fi ne biñ fi ñëwee aussi vraiment euh, parents d'élèves yi croisé wu ñu loxo yi am na parent d'élève boo xam ne moo ci gënoon singularisé vraiment euh, Imam Thioy moo ñu indil lépp lu ngeen gis fii ci garab am na aussi gouvernement scolaire bi indi na fi yeneen parents d'élèves yi aussi appuyé nañ

donc euh, loolu niñ ko ni mu ko ni mu ko waxee euh, c'est ni mu ko waxee mun nañ dem ba am fi un plan de euh, de revenu boo xam ne dañuy permettre vraiment ñu appuyer école bi ci ci financement ci production ci école bi rek avec l'appui de de de SEC comme ni mu ko ni mu ko waxee. tey dañu ñëw fii ci nouveau lycée bu Mbour pour wuyu appel bi nga xamante ne moom le président Macky Sall lancé Sénégalais yëpp muy que sénégalais bu nek fo meunti nek ci Sénégal nga jëmbat budé ben benn garab bi ñu déggee ñun en tant que ndaw parti bi en tant que cogère de structure jeunesse ñu né luñuy def moy lancer une campagne de reboisement pour pour mois bi nga xamanté mom lañ nek mois de septembre ñu choisir le nouveau lycée pour lance défé fi lancement bi bëgg participer c'est li ñuy le Sénégal vert mais aussi reboisement durable bi nga xamantene mom le Sénégal mom la mom la le président wax ci li nga xam moy le PSE vert bi bokku si bi bokku si priorité quinquennat bii nii. dinañ dinañ dinañ choisir école yi dinañ choisir école yi choisir place publique yi ak yenn lieu de culture ak yenn 30 mètres yi nga xamante ne leer nañ ni buñ fa jëmbatee ay garab dina am suivi parce que garab nag booy jëmbat garab pour toppatoo baa tax donc fépp foo xamante leer nañ ne fii tey buñ fa jëmbatee garab dina am ñu ko mën a toppatoo dinañ fa dem jëmbat fa ay garab parce que Sénégal moo ko président de la République moom moo ko woote muy Sénégal vert te pour Sénégal vert faaw ku si nekk sa gox mën vert donc fii la ñuy njëkkee mbu si si si Mbour fexe ba Mbour benn commune du ko du ko raw ci programme boobu nga xamante ne le président de la République son excellence Macky Sall moom moo ko lancé. dinañ jëlu si waat ci lycée bi parce que biñ ñëwee fii tey fekk nañ fi le proviseur Soulever nañ ay problèmes yoo xamante ne amaana ñun sax xamuñu ko woon donc te problème yooyu mu soulevé ñun en tant que jeune. am si fii si bi nga xam ne suñuy rakk ñoo fi nekk suñuy jarbaat ñoo fi nekk ñun ñoo leen war a accompagner danañ fi dellu si xool li nga xamante jafe-jafe yi fi proviseur bi yëkkatee lan lañ ci mën a lan lañ ci mën a def ñu accompagner ñu leen du soobee yàlla te dinañ aussi ñaax responsable autorité yi nga xamante ne tey am nañ occasion ñëw fi ñoom dégg nañ li nga xamante ne moom la proviseur wax te ñoom tasi ku si nekk jël na ci ay engagement te loolu moo ci am solo parce que choisir ñu lycée bi gratuitement parce que boo neen le nouveau lycée turam rek dafay wane lu bëri lycée bu bees day manqué lu bëri te pour mu am pour mu pour mu am li nga xamante ne moom la soxla fa communauté bi ku si nekk def si sa participation